Après l'annonce, la mesure a été effective. Les journalistes Pape Ndiaye de Walf TV et Serigne Saliou directeur de publication du journal Yor Yor et chroniqueur à la Sen TV, ont recouvré la liberté ce mardi. Ils sont toutefois sous contrôle judiciaire. Ils doivent ainsi émarger au cabinet du magistrat instructeur le premier vendredi de chaque mois. Aussi, il leur est interdit de sortir du territoire sans autorisation préalable. Interdiction leur est également faite de communiquer sur leur dossier en cours d'instruction. Pape Ndiaye de Wolf TV et Serigne Saliou Gueye avaient été entendus sur le fond de leur dossier le lundi 19 mai. C'est par la suite que leurs avocats ont introduit les demandes de mise en liberté provisoire. La commission politique du dialogue national a trouvé hier un consensus à la question de l'inégibilité de Khalifa Babakarsal et de Karim Wade. Ces derniers pourront se présenter à l'élection présidentielle de février 2024 après la révision issue des conclusions du dialogue. Un des parties prenantes sur la modification des articles L28 et L29 du Code électoral a permis à Khalifa Sall et Karim Wade de recouvrer leurs droits civiques et politiques. Des arrêtés portant interdiction de rassemblement et de marche ont été pris par le préfet de Dakar Mortal Tine qui a opposé un niet catégorique aux manifestations projetées par le groupe Walfadjri et le mouvement Force Vive de, de la Nation F24 le 23 juin, mais aussi celle de la coalition Yewi Askanu pour le 25 du même mois. Pour motiver sa décision, l'autorité préfectorale brandit les motifs euh, de risque de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens et risque d'infiltration. Les épreuves de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième ont démarré ce mercredi sur le territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale a visité des centres à Dakar. D'autres autorités ont aussi visité des centres dans l'intérieur du pays. À les croire, l'examen se déroule bien. La seule remarque, c'est l'absence de candidats, mais ils ne sont pas nombreux. Nous terminons par le sport. L'équipe nationale de football du Sénégal a battu ce mardi pour la première fois de l'histoire celle du Brésil en match amical. Sadio Mane et ses coéquipiers se sont imposés par quatre buts à 2 devant les quintuples champions du monde. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.